Abdou Top am na benn question bu ñu wax ne moom moo fi bàyyeeku woon keroog dañ ñu koy tagal rek euh, su ko defee oustaz im si xalaat. ndax nitu yàlla dana naan sàngara nitu yàlla dana njaaloo nitu yàlla dana toog ba jékki yëg boppam amatul soxla mu robb fii dem ci riyaasoor gi fay xaalis te jigéen ju ko dewut il faut faire très attention nitu yàlla dana ko def. nit yàlla dana dem fekk mbànd mu naan ci ba dugg ci fee jàpp ci génn di taaya dana mën na ko def mën naa dem fekk alalu jàmbur mu tege mu sàcc ko mën naa dem jaxase ñaari nit ba nu xuloo ba seen giirub dund doot ñu juboo waaye du fen mukk te du jëw ayca ngi noonu oustaz dégg nga li góor yi wax euh, jëm euh, par rapport ak nitu yàlla ñu bàyyi la rek nga tontu si waaw tabaarakallaahu euh, muy euh, question bu am solo jóge ci nag euh, kilifa goo xam ni boroom xam-xam la macha allah waa muy boroom xam-xam bu ba jàmbaare macha allah tabaarakallaahu sëriñ duud la tabaarakallah muy boroom xam-xam dëgg-dëgg ku am xam-xam macha allah doon koo xamante ni dëgg-dëgg nag bu waxee dañuy xam ne rek boroom xam-xam wax na waaye nag ñu ñëw ci cadre nag diine lislaam <laughs> diine lislaam moom daa am lu muy doxee am loo xamante ni yàlla moo ko moom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit de dina naan sàngara jullit dina njaaloo comme ni mu ko waxee yi mu wax yëpp jullit dina ko def waaye jullit de du fen ndax masala la mu ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye waliyu nag garaat la mhm. waliyu ah waliyu mooy nitu yàlla bi mooy nitu yàlla waliyu moom waliyu boo xam ne dafa egg ci martaba siddiqiina mm-hmm. nga xam ne dem na bay communiquer ak boromam seetlu lool lool lool lool moom du ci def benn nag ndax am na loo xam ne nag yàlla moo ko moom mm-hmm. bañ na ko ba sunu borom daa tuddee boppam waliyu mm-hmm. te li may wax mu ngi fi genn suratul baqara yàlla ci boppam bokk na ci tur yuñ koy woowee al wali kon loolu tur wu riis la tur wu rëy la yàlla su ne allah waliyu ladina amanu ñu gëm yàlla ñoom ñëpp yàlla mooy seen wali mooy seen kilifa yoxrijuhum min azulumaati ila nuur da leen fekk ci lëndëm mu génne leen ci lëndëm googu yóbbu leen ci leer walladina kafaru ñi wedd yàlla tey def lii mu wax ñoom awliyaahum taaxuut ñooy seen kilifa di seen sëriñ mooy ñi nga xamante ni dañoo gëmul yàlla ñoom ulaayka naar ñoo ñëri waa kër safara yàlla nee na hum fiha xaaliduun foofu la ñuy sax moo tax maqaama siddiqiina martaba bi gën a moo tax yàlla ba muy wax dafa ne qad aflaha al muminuun na nag ay xikaayaat ay histoire yu ñuy nettali naan wëlli yu moo koy def waaye bu dee mooy yàlla la jamono ga nga koy def sa garaat wàcc na nekkatoo wëlli yu mm-hmm. moo di yaa may dégg mooy yàlla jamono boo koy def sa garaat nekkatoo waliyu amatoo maqaama ba amatoo daraja ba benn waliyu ñëw na ci benn bistron foo xamante ni dañ fay jaay sàngara comme nit yàlla la borom cër la mu bëgg a fay sàng mu bëgg a fay place boobu ñu koy jaayee moom mm, mm, mm. dafa ñëw ni mu ni ki moom place bi damaa bëgg nga jël ma may liggéey ci place bi ndekete secret bi ne si moom mooy heure ku ñëw su la jaayee boo naanee sàngara leneen lay saf dootul saf sàngara ah. mbaa yaa ngi may dégg ñu dem a dem ba sentir ni personnel bii ñëw fii ñëwatuñu fi borom mi ko moom yëg ni kii fi dugg daal bees am na lu mu àndal mu dem ba yëg ko ci la ñëwee ni ko góor gi daal sentir naa ni jamono bi mu fi nekkee léegi sama client yi dañoo gën a wàññeeku kon gis nga wallu yu bi dugg na ci palaasu bi bi fa ñuy naanee sànkara mu fréquenté leen waaye taxul mu naan sàngara kon xanaa liggéey sàngara yaa mbaa yaa may déglu mais taxul mu naan sàngara su boobaa nag ma jigéen position day daal di taxaw am na loo xamante ni dimension wu sunu boroom la yàlla képp koo xam ne saalix nga képp ku sell doon wël yi dem ba am martaba bi am maqama bi doo mooy sunu boroom doo def lu la yàlla santul soxna ma jigéen léegi lu lu Assane di wax njuumte njuumte ku ciy liggéey parce que xikaaya la boo xam ni mënu ma tëb te sax ni moom dafa juub ah, ndax xaw ci ban dimension la ko déggee ak ban performance la ndax borom xam-xam la est-ce que waroon wax jullit du fen te loolu njàngale la xam nga ni jullit day def yëpp te loolu njàngale la waaw njàngale la jullit yi mu wax yëpp jullit da koy nit jullit du fen ndegam jullit bi moo dul fen asama jullit bu dem ba egg ci maqaama wala lii mais nag nitu yàlla la te borom xam-xam la alim bu mag a mag la. li ma daloon ci masala bële paase rek. Ah. laay wax ci masala bii. Ah. xëy na bi mu ko dégg nag moo ko xam. Hmm? ki toog di jaay sàngara te naanu ko nag. ki toog di naan jaay sàngara bi. Ah. te naanu ko wala nga gis parfois da nga gis jigéen ñi ne ci hôtel. di jaay sàngara dafa xaraam. dafa xaraam sàngara toog caag. jaay ko fréquenté ko yooyu yëpp. dafa xaram kii yaakaar naa ne bi ko somay bu tontoog léegi yaakaar naa su ma jur war naa man ñetti at ci julli nii ah. kii nii waaw lii nii bi mu ko waxee léegi bi ko somay bu tontoog léegi yaakaar naa war na man ñetti at mhm. somay bu dane ko woon da ngaa déggut alxuraan wala da ngaa déggut addis mhm. ndax boo déggoon léegi mooy li yonente bi ne ko dana def nangam mu ne ko waaw mhm. mu ne ko nit dina naan sàngara mu ne ko bu sàggan nit dina njaalo mu ne ko bu sàggan mu ne ko nit dina fen mu ne ko nit du fen mu fekk mu sóor mu jóg ne ko nit du fen mooy boo bàyyee fen rek yooyu yëpp da nga koy bax dëgg la moom noonu la ko wax baal fen rek dëgg la wala ku fen moom ku bàyyi fen doo naan sàngara doo naan maanaam moo tax kii wax nii aalim la jàngkat la boroom xam-xam la dëkku xam-xam la juddoo doomu boroom xam-xam la ah, waaye nag li am solo mooy ak nit lu mu mën a wax man li ngeen ma laaj ci li ci yàlla wax mooy mm. wëli yu daal li mu ci wax moom waaw dimension ak déggam la waaye li alxuraan wax daa leer mm-hmm. képp koo xamante jullit daal du fen d'accord rawatina nga am maqaama ma yu nag martaba siddiqi na boo ci duggee yi mu wax yëpp doo ko def am na solo mi ngi noonu Oustaz euh, xanaa rek euh, beneen <laughs> aljuma heure bi jeex na xanaa ñu may bambe rek mu tàggatoo très rapidement parce que nee na jeex na mm. non bii ba ma ko pour pour ñu leer temps jeex wax maa koy ñaan maa koy maa koy ñaan ki nga xam ne daal on sa muskil maanaam ki nga xam ne dafa am parti góor am parti jigéen charia nee na nañu xool parti góor bi ak parti jigéen bi moom jëmm ji ban moo ci gën a ëpp ban moo ci gën a am taxawaay ba ca gën a am taxawaay atte boobu lañ koy atte bu dee bu góor bi moo gën a fonctionné atte ñaar na lay ñaan bu dee jigéen moo gën a fonctionné bu wax nag lay doon atte benn mais maa bàyyi ba beneen comme temps bi jeex na foofu tam am na sew sew bu ma ci indiwaat ci question bi leeragut sama bopp déedéet am na lu des bàyyi ba bii di ñëwaat temps bi amul daal damay tëj moo tax solo damaa solo sama bopp waa def nañ ko xool Assane da ngaa bëgg ma jaar ci ah, léegi kan moo koy xool bu boobaa. xool ban kër ëpp jeex na Bambey. <laughs> Eh, ba beneen. Ah, médecin yi ñoo koy xool. baam ci lu leen leer loolu mbiru médecine la. su boobaa charia day woo médecine. médecine ñu xool ko xam ni kii côté góoram moo ëpp wala côté. ayca 30 secondes